jërëjëf euh, Birame comme ni nga ko waxee ni euh, ñu fii indi mooy waxtaanee lu jëm ci Sénégal lu jëm ci Sénégal nag bu ko waxee mooy ci li nga xam ne moom la ñu engagé wu politiquement. parce que mm. tey bu ñu jógee dugg ci politique. c'est parce que dafa am euh, lu ñu yaakaar ne bu ñu ci duggee mën a soppi xarkanamu réew mi. Mm. loolu moo tax sax ñu engagé wu ànd ak le leader le président Thierno Alassane Sall. Mm. parce que su suñu gis-gis. suñuy valeur jàpp nañ ne euh, ci ñi fi nekk tey ci politique moom la ñu a méngool ay xalaat moom la ñu a méngool ay gis-gis mhm. ci li nga xam ne lay incarné aussi mooy les valeurs cardinales tey ji mag ñi dañ fi nekkoon biñ fi jógee am luñ fi bàyyi muy loo xam ne ñun ñoo ko waroon a téye mais gis nañ ne ci jamono ji am na bari loo xam moom mu indi benn programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee refonder notre pacte républicain maanaam ñu refonder li nga xam ne mooy pacte bi mooy sunu programme daanaka comme ni ngeen ko waxee génn na bërki dem def na benn vidéo boo xam ne de déclaration bu durer quatre minutes vidéo bu am solo ci vidéo boobu programme bi sax waxuñu waxu ci programme mais jël na ci aspect yi nga xam ne mënul ñàkk tudd na pêche tudd na agriculture tudd na éducation tudd na sécurité waaye li mu gën a jagleel li nga xam ne mooy programme am mooy ndaw ñi la ko jagleel ndax ndaw ñi wax nañ ko sànq su suñuy biir kàddu pourquoi ndaw ñi di jël gaal yi di génn réew mi jamono jii boo xoolee ci ñaari weer yu ñu génn lu lu toll ci sept mille jeunes moo xam egg nañ moo xam dee nañ ci géej gi génn nañ réewum Sénégal dem fan ndax lan luñ fay wuti ci kaw lan en 2005 2007 li ñu doon wax Barça wala Barça phénomène boobu ñëwoon na ñu ne dinañ ko jéem a stopper ba nga xam ne réew mi ndaw ñi dañ fi mën a nekk liggéey bañati génn réew mi ci loolu lañu amoon ñoo xam ne taxawoon nañu woote programme boo xam ne pour defar réew mi lañ ko tuddee muy li ñu indi seen programme proposé ko Sénégal yi muy PSE mais PSE boo koy mën a jàngal mooy plan Sénégal en endettement parce que endettement parce que boo xoolee en deux mille 2007 bi nga xamee ne deux 2012 bi le président Macky Sall ñëwee ñu ngi amoon boru 2000 milliards mais tey jii booy xool bu ñu ko estimé ñu ngi toll ci mille milliards donc kon li ñu en wu ak par rapport ak Sénégal fi mu toll ci réew mi. lan nga fi gis ci xar kanam loo xam ne lu soppeeku ndaw ñi ndax lañ leen diggoon pour maanaam ci wàllu liggéey est-ce que loolu am na moo tax nag ndaw ñi bu ñu xëyee di fipp wala ñuy génn di wax wala ñuy génn di dem ci yeneen yi rek dëkk loolu day aju ci ndodd ñi nga xam ne ñoom ñoo diriger réew mi loolu nag bokk na ci ñun si suñu xalaat mooy gën a indiwaat loo xam ne dañ koy dégtalaan ndaw ñi moo tax ci suñu programme bi nga xam ne dinañ ko génne ci fan yu néew président dina jàkkaarlook incha allah journaliste sénégalais yépp ñu toog mu toog ñu poser ko ay question ci programme bi mu wax ci li nga xam ne moom la dégtal sénégalais yi ndax am nañ programme boo xam ne incha allah wax nañ ko dañu bëgg Sénégal nekk usine de l'Afrique de l'Ouest ki di usine mooy lépp loo xam ne lu ñuy defar fii lay jóge ci Sénégal sànq yaa ngi doon wax soble bi soble bi jóge Maroc et pourtant le Maroc Birama moo ko wax donc soble boobu Sénégal pourtant am nañ ay suuf yoo xam ne mën nañ fi bay suuf yoo xam ne mën nañu jariñ boo xoolee euh, chinois yi nga xam ne ñoo fi ñëw wala indien yi boo demee fële sa Thiès wala feneen ak feneen ñu fay am ay pàkk yoo xam ne dañ fay bay mais bu ñu bayee la ñuy bay muy pastèque bii ak guana bi ñuy bay bu ñu ko bayee ba noppi la dañuy dagg la gën a baax ñu def ko ci ay ay ay ay kees yóbbu ko bitim réew te pourtant sénégalais yi la nga xam ne moom la ñuy génne ca la ja des moom la ñuy bàyyi fii Sénégal jaayee ko fi donc ñoom am nañ vision ba ñëw si sunum réew pour liggéey loolu léegi nag ñun dañu bëgg a joxaat sans sénégalais yépp ñu déparaat nekkat yi maanaam position boo xam ne sénégalais bi gën a suufee sénégalais bi nga xam ne moo gën a néew doole dana gis boppam ci réew mi ndax ku xam le président Thierno Alassane Sall xam ne c'est un doomu daara doomu daara dafa yaroo ci daara jàng arxuraan ba màgg dem dugg école mokal li nga xam ne mooy ci li jëm ci wàllu réew am ay diplômes yoo xam ne yu am solo ingénieur en économie ingénieur en télé euh, donc en aviation civile mu nekk koo xam ne kàngam la tey jii mu démontrer ay preuve am au niveau nag ci réew mi